nuyu naa leen ci biir limametti point com comme ni ma koy defee semaine bu nekk suñu biir émission limametti show mais comme ni ñu koy faral di waxee limametti show oblige ndax dañu nekk ci ay campagne ah, ba pare ñu nekk ci campagne boo xamante ne dafa doy waa torop bëri violence lool te xam ngeen ne limametti fu nekk lay génn ndax ñi mu ànd ak yéen ak ñi mu diggee ak yéen mooy lu xew lu ne dañuy ànd ak yéen waxtaane ci ñu gis nag élection 2019 yi ki may dalal tey mës waxtaan y a deux ans euh, benn émission mu waxoon ma loo xamante ne lu bëri day am ci élection yi ñëw euh, mu mel ni yàlla bàyyi ñu fi ñu fekkee ak tal ba mu ñëw mu nekk lo xamanteni ñu waxon gis nañ ko mu and ak violence bu doy war waxon na ci réeru xalé yi waxon na ci accident yi waxon na ci lu bëri mais comme tu ne du tew ñuy natal te wax waxa du bëri wax leeral wax la du ñak moom dina am yo xamanteni nañ dimbali ba ayib joju nekk ci suñum réew dañ loolu mo waral tay sama joko ak mom xamna ben waxtaan lay doon rek ñu fas ko euh, imam Mamour Sall ñu ngi lay nuyu di la ziar lool di am mbégte bi ñu euh, nanguleewaat ci jakarlo bi ñu ngi nuyu walu ga yëpp di len ziar euh, soxna nday ñu ngi len fay bu baax di nuyu seen site bi nga ne mooy sit bu bees bu am solo euh, di leen ziare di nuyu tamit kilifa yi ngeen bokk liggéey bi di ñaan yàlla na seen taxawaay yàgg di leen fay bu baax di leen ñaanal yàlla di fay nuyu sunu mbokk yëpp képp ku koy seetaan ñu ngi lay di jox loxo di fas yéene rek laaj yi ngay laaj ñu wax la ci li ñu li ñu yàlla kattanal incha allah. imaam dañu waxtaanoon. deux ans si gannaaw nga waxoon ma lii ñëw jamono jii mu mel ni loo gisoon la wala loo xamoon la parce que yaa doon wax si jamono yu temps sàcc xale yi nga ne ma dina am ay jamono yu ñëw xale yi ree dina bëri lool ndax sacrifice yi muy àndal nga waxoon ma tam si élection 2019 yi dina tàng lool décès yi dina bëri lool mu mel ni décès yi nag dañu ko seetlu si accident yi imaam lu waral accident yu métti yi nii tar lool lool lool lool lool xam nga yàlla dafa wax ñaar ci alquran ak qul a'uuzu bi rabbil sharri ma xalaq wa min sharri xaasiqin isaa waq wa min sharri nafaasaati fil uqad wa min sharri xaasidin isaa hasad ak qul a'uuzu naasi maliki naas ilaahi naas min sharril waswaasil xannaas allazi yuwaswisu suduuri naas minal jinnati wan naas xam nga li waral yooyu yëpp yàlla daf ko tënkoon ne dama bind ma woon lu dul nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma mais ci biir jaamu googu nun li ñu war dañ koo deful danoo moytuwul yi nga xam ne moom moo am ci àdduna te bi ci des mooy dañoo am ay dëkkaale yu xaw a doy waar mooy yi nga xam ne da leen di gis te yow duñ la gis sa à ci lañ tegoon suñu wax boo seetloo sax am na élection yu jiitu woon joxe nañ ci ay benn chiffre boo xam ne moom la ñu war a sarxee ci soow même bii danañ leen joxaat chiffre balaa émission bee jeex pour nga xam ne maanaam ku ko ci defit sa njaboot mën na ci mucc mais parce que ñi ñuy liggéeyal maanaam ñi nga xam ne moom la ñuy ñoom la ñuy gis te ñoom duñ ñu gis euh, ndey ñooñu dañoo yéeme moom la ñuy wooyee rab daanaka boo gisee sacrifice yu bari pour mu jàpp carrément boo gisee fu mu gën a bëri fa la accident yi gën a bari fa la deega di gën a bari du nekk nag loo xam ne da nga koy danga koy da koy gis wala nga teg ci loxo mais nit ñi dañoo jël dañoo jël wàllu wàllu wàllu ñaan li ñuy tuddee mystique di ko utiliser te xamuñu dayo bi ni mu tool parce que soo xamoon dayo mystique bi am na ci loo xam ne war nga moytu ba di ko def am na ci galaaj yoo xam ne soo ko xasee def mu noo fexe ba du tëral nit doo nga doog a jàll fi nga jëm waaw ci wàllu wàllu euh, ndomba tànk wàllu alal wàllu kër wàllu suuf wàllu place am na ci ñooñ foog ñu tëral nit doog a jàll am na ñooñ foog ñu tëral bakkanu xar foog ñu ñiy béy ñiy nangam léegi sacrifice yooyu nag lu mu gën a bëri rab yi moom parce que bu njëkkoon boo gisee li tax nit ñi am problème mooy bu njëkkoon rab yi danga nga daan ñëw place bii comme fii nu nekk nii ñu mag mag jënd ko defar ko pare ñëw mais dafa fekk mu am xam-xam bu wóor ko ne dafa am ñu fi dëkk mais day ñëw toppale leen. day ñëw ne leen no tuxu leen da nga randu leen ma dëkk léegi nag c'est dommage ñun amatuñu xam-xam bu déplacé dañuy ñëw di pësanteeg moom ci kër gi loolay waral léeg-léeg nga am sa ñaari doom kenn ki rey moroom ci. loolu lay waral tamit nga am sa jëkkër wala sa jabar nga tegal ko reer mu tegal la reer bu neex ci guddi gi mu jam la. wala nga jam ko loolu rab moo koy def loolooy waral léegi boo seetloo contact yu bëri dafa am ay rupture te looloo koy indi mm-hmm. parce que da ngay gis damay waral lu ndaw laa lay wax ci lu loo xam ne mais rab yi nag ñoo tasaaroo boo déggee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy mas na ko alerte nee na am na ñu jóge sax am na yeneen rab yu jóge ci yeneen dëkk ñëw dugg si mais nun yi nu yor képp dafa saay-saay mm-hmm. yi ñu yor képp dafa mat dafa mat li mu doon mais nag il faut ñu def ci très attention parce que ñaar la gën a soxla mm-hmm. sacrifice am bi ci gën a graaw mooy boo seetee li commencé cinq ans jëm jëm vingt deux ans diggante boobu rek la ñuy sacrifier waaw boo gisee du ñu sacrifier mag mhm. ba rab bu lay laaj sacrifice su nit du la laaj nag du la laaj du la la laaj euh, mag xale la lay laaj moo tax li commencé cinq ans ba dix huit ans bu dee yenn place yi la wala yenn dayu yi liir la ñuy laaj am na yoo xam ne bu ñu ko dee liggéey euh, euh, jigéenu wérul la ñuy wut waaw boo gisee léeg ñu jël ko yóbbu ci nit yóbbu yóbbu nit koo xam ne maanaam dafa ëmboon ñu yóbbu ko da gis dañuy def kut ko kut ñu def pour mu pour mu pour mu accoucher ñu jël liir bu bees bi lañ cay def ñu def ko am na ci boo xam ne nag buñ ko xasee def moo waral ñu naan jigéenu wérul nañ ko nay moytu di lekk yàpp sarax moo tax parce que bu doom ji juddoo noo mën a def mu soxor waaw noo mën a def mu soxor moo yu bëri dañ koy dañ koy wattuloo beneen bi ci des it ñu wax ne euh, nañu moytu tamit di di di di di di di jaar ci diggu yoon maanaam sele ba yoon maanaam fu ay yoon couragé parce que man am naa ci sax bërki dem rek bi ma sama koñu kër euh, bi dama tourné rek yem ci ñu toj fa ñetti nen ma ne kii di am na ko muy yàq c'est-à-dire loolu du caagi ni lam nen ba mu toj mooy yàq déedéet rab bi mu ko sant liggéey bi maanaam boo gisee xaatim ak lépp dafa am rab nga koy booleel pour mu mën a def loolu léegi nag su fekkente ne yow xam nga loolu da nga koy def ci façon boo xam ne bu boobaa lii la lay laaj su boobaa li ko laaj da koy def loolay waral rey doom rey rey yaay wala baay rey doom wala ba doom rey baay wala jëkkër rey jabar léegi nag boo gisee politicien wala ku mu mën di doon muy wut ndomba tànk boo seetloo seen alal am na ci ñu bu njëkkoon boo seetloo boo fàttali ko bu njëkkoon sacrifice yooyu amul woon Sénégal amul woon da daan gis ko daan ànd ak euh, euh, euh, jabaram. dem dellu si ne dafa feebar wala mu dellu si ne dafa mujj gaañoo fekk sacrifice bu mu fa joxe la ñu teg ci at rek mu yor alal ju jeex nga gis koo xam ne day yóbbu doomam ba ba da ngay jéggi da ngay génn Sénégal wala nga yóbbu sa xarit wala ñoom danaan la ku mel nangam lay laaj boo ñëwee da nga koy joxe boo ko joxee nag quelque temps après doo jeexal dara wala nga nekk ci benn place boo xam ne ñu ne diw mii kenn mënu koo gañe boo seetloo jël na xale bu toll ci quinze cinq ans ba dix ba dix huit ans kooku moom ñaare moom la ñuy jël cinq ans à dix huit ans ñoom ñooy def liggéey yooyu waaw bu ko defee dañ koy jël benn poto poto poto poto poto bi nekk ci kii bi benn bâtiment bu ci tabax ci biir biir biir liggéey moo xam mairie bi la wala wala building bi wala lii bi ñu su ñu kiyaale ko ñu dugal ko ci biir potam bi ba pare kuule ko. ku xale bu jigéen bi. te du dee noonu lañ koy dee noonu lañ koy defee sacrifice ah, léegi nag kooku mairie bi luñ xëccoo xëccoo du dem. luñ xëccoo xëccoo moom kenn du imaam li nga wax doy na waa de jël nit ak noppam di ko kuule waale ak bâtiment pour mën a bu njëkkoon am na ci ñooñ dañuy jël bu dee ci wàllu alal la joo xam ne du ñu xam fu mu jóge am na ñooñ dañuy jël xale boo xam ne li commencé li commencé un an ba cinq ans dañ koy yoor ci dañuy jël benn bu mu takk ko ci benn teen yoor ko du yegg ci ndox mi du yegg ci kaw ba mu dee noonu. ba ba xale bi ba dans temps bi mu war a dund. maanaam bu doon xale bi dafa dañu calculer amam mu war a dund 60 euh, ans. 60 ans doo jeexal dara. loolu yëpp nag ala la koy ñoddi ak place. te ñi ñi ñu ngi koy def. ñi ñi koy def léegi am dañ ci dolli leneen li gën a garaaw mm. mooy boo gisee ñaare néew. néew ñi ko ëpp ñi ko utiliser cër yooyu mooy ñi nga xam ne dañuy jël seen rab bi da leen di laaj pour mu defaral leen pour mu mën leen a fegal si le plan mystique pour mu mel leen a fegal da leen di laaj faaru ku dee wax la âge bi moo xam jéeg la wala kii bu demee ñi koy sang nag ñoo koy daggal loolu. dañ ko am na dañ ko am na. ah am na ñu dagg faaru ku dee pour jox ko jox ko nit ki mu boole ko gàllaajam. waaw mais ñun pour te pour téye pour téye gimiñu problème bi mu bi mu am. mooy ñu am problème justice wala ñu am détourné ay milliards ainsi de suite ñooñu ñoo koy def ñooñu parce que pour ñu ñàkk loolu da leen koy jaral waaw moo tax rab yi dañuy dañuy combine ak ñiy def ñaan. Hmm. mais Imaam ñun Sénégal bu ñu demee ba toll fii l'heure est grave. si si ba ja des mooy am na lu gën a garaaw. xam nga maa ngi koy wax démb. am na xale yu jigéen yoo xam ne xam nga ñu ngi topp euh, sunu mbokk étranger yi jóge bitim réew. te xamuñu ne ñoom seen am yi mooy rab yi ñuy utiliser di ànd ak ñoom rab yooyu dañuy mànq nit loolu la waral su da ngay jël dañ lay jël nga yaakaar ne dañu la soxla rek pour sexuellement mais soxlawuñu la pour sexuellement su ñu jëlee sa sa sa sa sa sa kii wuñu yitlaay bi boo ko fa fàtte wala ñu jël ko dootoo am doom ci àdduna te da ngay jékki rek di ŋàccu fekk dañu manq wànq li ci sa biir bi rab moo koy def ñoom dañ koy defee fétiche yooyu li côté yi jàppee waruma tudd dëkk bi mais lii bu ñëw seetee suñu xeetu suñu xeetu étranger yi am na ñu ko ci am na ñoo xam ne ci fétiche boobu la ñuy def am na ñooñ tamit aussi seen wajur bu góor lañ leen di laaj. te dañ koy jare dañ koy jare moo tax xaalis amul xarit. Hmm? amul xarit non amul xarit amul xarit. waaw léegi imam man fi mu ne nii moom damaa waaru bu fekkente ne yooyu yëpp mu ngi biir Sénégal ñun kon léegi fan lañ jëm. non fu nu jëm mooy lenn daal laa xam ne ku koy def da nga ci mucc mooy yaraat sa njaboot tey ñaan tey sarxe waaw sarax bi de nga di ko def te yàlla tax maanaam looy sarxe nga di ko def te yàlla tax te booy sarxe it sa lu lu weex na ciy ëpp parce que problème bi mooy soo barewul tamit dañuy bëre daanu sa kaw. parce que problème yi mooy ñu bëri xamuñu ne ba bërki ba ba bu yàggul dem naa ci benn dëkk euh, côté ba Mbour. génne naa fa ñetti liggéey yoo xam ne sama loxo bopp maa ko génne. teewoo woon ne la yii dafa am ay liggéey yu ñu yu def fii. waaw dañ ma kii bi ma ki nga xam ne moom lañ ko def. daf ma woo sama wëllëre la. di sama xarit di lépp nag man soxnaam sax maa ko ñaani mu xëy am ay difficulté yaramam liggéeyam commencé yàqu euh, commerçant la. yu bëri commencé kii mu woo ma ne ma sëñ bi xoolal ma bi mu ñëwee comme istixaara lislaam daf ko daganal ma defal ko istixaara bi ma defee istixaara gis naa ne am na lu ciy ñuul ma ne ko am na lu xew am na lu ñu def ci place bi. lii moom ma yóbbu bi ma demee man ma xool fan la laaj samay àndandoo parce que jinne yi tamit loo ci lu ci waay am ci lu baax ci ñu bon am na ci ñu baax parce que ñu baax ñooñu boo demee li ñu tuddee baabam baabam xay so dakki dàkko nakki jàpp nakki ak euh, jàmm nakki soo indi woon xale léegi mu wax fii nga toog. ma toog mu ne la day petaaw kañ la juddu nangam nangam nangam xale bi di la wax yow ngay dégg. waaw ma woo ko mu toog. waaw day bu fekkoon ne dafa ñëw dama koy woo mu ñëw toog léegi jinne boobu boo ko wooyee boo ñëwee danaan la liggéey baa ngi place sangam ba ma fa daan am na ma boole koo xam ne dana ko liggéey bi ñu la liggéey yow du liggéeyu du liggéeyu butéel liggéeyu béjjën la borom toog jooyu nag ñoo la koy wan. bu ko dee bi ñu ko dindee gis nga liggéey bi ñu ko dindee ñetti façon liggéey la benn bi laaj la bu ñu bu ñu mocc beneen bi fas la beneen bi fas la bu ñu fas ba pare tëj ci butéel bi waaw mooy li ngeen di gis soxna waaw benn bi boo gisee sagar bu mag la ñett ñetti pas la benn bi fas gu njëkk gi ñetti benn pas-pas mooy mm-hmm. bopp bi bi mooy ndigg li mooy tànk yi mm-hmm. mooy mu commencé woon nag am malit bu metti sax bopp bi day doon metti aussi jabar ji neen da daan nerveux mooy laaj bi bon fas gi mooy alal ji doon yàqu bi ñu tëj ko ci butéel bi ainsi yooyu noonu nag dafa bëri ci dëkk bi comme yi ngay gis yi dafa bari ci dëkk bi. dafa bëri lool ci dëkk bi. léegi nag élection yi ñu jublu. Mhm. dee yi bëri lool mel ni tulleeg maale. accident yi fii ñuy dem am def accident fii mu mel ni daal sama benn càmmañ nenam lu si ëpp si élection yi si tali bi lañ ko sànni moo waral tax ñu ñi di fexe ko rek. bon du du du sànniwuñ ko si tali bi. problème bi mooy xam nga lan moo am ba des mooy lii lii lii lii xaw du ma tudd benn leader du ma tudd mais Sénégal li ñuy consommer ci mistique moom lañ attudul dañu mystère ba mëpp c'est-à-dire li ñuy xeex ci kaw di ko maslaa sax ak néew si la plan mystique munu ko parce que soo ma sànnee ma sànni la sànni wi day ñëw wala ñu daje éclatement boobu nag ko mu ci tombeel foofu lay doon waaw léegi ñun moom ñi nga xamante ne comme ñun xeexuñu wu ñu xeex léegi ñun nu ñu def ba bu éclatement boobu bu dalee du ma lor du lor darman ko mi waaw xam nga ñaar daal moom bokk na ci li la ciy muccal bañ dem seen environnement bañ a jegeek ñoom mm. bokk na ci mooy mbooloo daal moom mm-hmm. boo ko mënee di moytu ku ko mën di moytu mooy gën parce que sànni waaw seen mbooloo parce que bu ñuy jóg boo seetloo ñaare mm-hmm. ñoom boo lo ñaare li ñi tuddé leader wala ki jité mbolo wala ki dara dana am fekk mom da koy dañ ko koy wax avant mais du téré mom mu dem fim jëm parce que xamna na dañ dañ ko né du la dal parce que bal muy génn voyante bi dana ko wax bu ku ci am sëriñ dëgg dana la bu génné tay sa mitin nangam wala sa dangam nangam nangam légui nak su fekkenté né yow euh, comment dirais-je euh, xam nga ko mais du la dem lutax ba nga xamé né nit dañ ci ñak bakaram wala histoire day am lutax fo mo mais xam nga ne yow waaw parce que jaral na la li ngay wut moo toll noonu si yow parce que am na ci am na ci sacrifice yooyu soo xasee def mënoo def li ngay def ba xëy jeex te laloo laloo bakkanu nit waaw amul. am na ci ñooñ nag yemuñu ca dañu koy def ba pare wut ay ponkal ñun tëju di werd du ñu werd werd yàlla turu jinne la ji werd waaw parce que yenn mbooloo yi jinne la déedéet parce que bu doon yenn mbooloo yi yàlla la jàkk yi njëkk a fees bu waat yi am déet ah ba ne bu doon mbooloo mi yàlla la jàkk yi njëkk a fees boîte yi waaw kay mais kon nag lee mbooloo mee jinne koy indi parce que li nga ngay sikar la li ngay sikar la. da ngay gis sax ku si woote day fees dell. bi ñu des te luy gën a garaaw léegi li tax jinne yi tamit di gën a manifesté wu mooy borom xam-xam yëpp dañu commencé dévaluer jinne yi di tudd seen tur yi ah. te loolu du yoon jinne bugg ko. bugg ko ñu bëri na xamuñu ko. da ngay gis ku dévaluer ainsi de suite mais du yoon du yoon parce que loo xam-xam ki noppi moo ci ëpp wërsëg moo ci ëpp xam-xam mais dangay gis ko ni diw sàngam moo ko téye diw sàngam moo ko téye koo dégg ñu di ko coow ci loolu déglul bii ma la wax bind ko denc dundam du yàgg. ki koy wa nettali kii tudd seen tur diw diwa fa ne diw diwa fa ne diw diwa fa du yàgg carrière bi du yàgg. Euh, maa ngi koy def benn benn exemple ci ci benn benn benn mbokk bu daan def asmaawulaaw asam ak di joxe tur yàlla yi joxe tur ji ne di expliquer mm-hmm. ma ne leen du yàgg mm-hmm. ñu mos ma ko laaj te booba maa ngi am maa ngi am 22 ans xale la mm-hmm. ñu laaj ma ko ma ne leen du yàgg sama saal laa toog du yàgg ñu ne ma lu tax ma ne ko parce que li ñu loo si le plan mystique buggul vantew ah ah bugg ko. waaw ah, moo tax parce que yaa ngi koy jàngee ci oto moteur bi koy dawal doo ko teg bët boo ko tegee bët suuf moo cay dugg moo tax dañ koy tëj ba mu jeg kasare ko foo xam ne suuf dafay egg moom mooy mystique waaw moo tax yu bëri daf mat bàyyi xel jigéen wérul yi dañ événement yi ñu jëm xale yi des na waaw hmm? ah, des na des na am na ci xale yoo xam ne dañ leen a jël ñu feeñ mais am na xale yoo xam ne duñu feeñ hmm. parce que dañ leen a sox dañ leen a joxe amna na xale tamit dañuy génn far force dem seen kër parce que dañ ko sanni mom lañ xam xam bo xamne dañ ko sanni muy xam-xamu wotal xalé bi mu jëk dajal day génn rek dootu xamaat seen kër man amna ci jarbaat bu anam mu ngi mu ngi ci dekk mais jalaguñ ko mais amna ci jarbaat bu génn boo dafa génn rek génn daw waaw pour wax la ne la xalé yi dañ ci am problème. xalé yi moom danañ ci danañ ci ki mais nak li leen ci gëna dimbalé mais bép wayjur bu ko dégg maa ngi lay ñaan na wut benn saabu ak soow nga defar soow ba mu baax nga sarxe ko sarxe saabu bi sa njaboot bu génnoon ni day waaw kooku moom maa soow ak saabu kooku moom ñu ngi koy ñaan bépp booy jur beneen bi ci des ndey te ñu war ko moytu mooy bi yooyu yëpp jàlle ñun Sénégal ñoo bëggantewul ñun ñun ñun bëggantewul ñun biir bëggantewul Sénégalais buggul moroom Sénégalais moo war a liggéey beeg fas yeeg maanaam may gis ndey peta mu nekk ci place am ma xëy ma ne na fi jóg. mu jaral ma lu ne mu topp ndey ndey tëdd di nelaw mu jaral ma man ma génn. dem ba Gàmbi ma wut fa fas wala sunguf boo xam ne ndey du ndey dootul jóg dootul jóg xam nga bala ngay toog da ngay jóg dootul jóg. ñu naan luy luy luy te liggéey yooyu ma la ma la wan noonu ci seen kii boobu liggéey yooyu gis nga bu continuer ba chronique commencé jël weex. maanaam liggéey bi yàgg ci suuf si ba jël weex dugg na sa yaram te dootul wér même bu ñu ko dindee dalay ngàcc moom naawtal ñoo yam naawtal kuñ ko def nga dem dellu si doo dund lu yàgg xoolal nag ku ñu naawtal ñu ne dañ koo naawtal ku ñu naawtal dëgg soo doo dundaat fanweeri at parce que naawtal diggante bi ngay dem ba fi ngay feeñe ba fi ngay wér day fekk mu sëxëñ sa yaram doo gis léeg-léeg ñu ne la ndax yàbbi na boo dugalee bisaab ci kii lu muy def bu ah, yàbbi lu mu fa yàbbi du cafka gaag melokaan wax jeex na liggéey si la pharmacie gi dafa am loolu. waaw mm-hmm. ñuy def pour mën ci mucc gannaaw sarax boobu nga joxe muy lu am solo nga xam ne jamono ji sénégalais yi soxla nañ ko lool lool ndax waaru nañu. waa xam nga xam nga ñaar daal moom jullit feeg mi ngi ci. dafa ñu ki jullit nag moom sarax yi na ci yam mais jullit daal feeg mi ngi ci day fexe bay takkoo njàpp waaw booy takkoo njàpp bala ngay tëdd kenn du la liggéey jàpp benen bi ci des it bu fekente ne tok nga tamit euh, ba ba ba suba teel. ngay fexé ba premier jour bi ngay euh, ngay sa premier heure ngay wax bismillah mucc rahmani mucc rahimi mucc nga di def ñet yoon man nga ci genn sa bo yow mën nga ko def ba wacce tega bismillah mucc rahmani mucc rahimi mucc jël leen ko yeen ñi seetaan un peu partout dans le monde ndax fimne ni ne ñun ñep dañu wara mucc. wax nañ ne boko waxé su fekke da nga wara dem yëngu-yëngu di fam doko fekke mom dalay wuute la doko fekke su dé auto nga yor bo xëyee bo yek ci auto bu dé fa nga jëm auto bi day pan ba mécanicien bi nek ci ba lola jall ñu net li la la fa xew waaw mucc ah, parce que mom kooku lañ yàlla sirru basmala la waaw benen bi ci dess moy té ñu né bu fekkee da ngay tëdd tamit euh, bëgg seetaane bañ la bañ la ki défal ñaar fukki bismillah rahmaan ak ben wa basmala basmala moy bismillah rahmaan moom moo ëpp lu muy ar ke yu bëri moo leen man moom la parce que moom la ñu wax ne mooy sirru fatiha te fatiha mooy sirru kaamil. boo nee basmala pour ñu lay seetaan. ñooy bismillahi bismillahi rahmaani rahim. 21 euh, boo ko defee li ci gën a yéeme sax mag ñi nee nañ boo ko defee tëdd ci kër gi fàttee tëj sa bunt mm-hmm. li la wër 40 bunt kër yi la wër doo fi dégg sàcc jour boobu. léegi boo ngay tëf rek. da raay sa kanam. raay sa kanam raay sa allah waaw moom la ñuy wax waaw waaw euh, xam nga boo gisee boo bi ci des boo bañee tamit ñuy liggéey lu bëri di la jàpp. Mhm. même boo deful dara del nga fekk nga yor jàpp wala njoroo jàpp mhm. fallaxe ak naasi baax na te ñëpp ko man waaw ci ñëpp ko man fallaxe ak naasi ñëpp ko man day ñëpp ko man mbaa ñi ëpp man nañ ko wa xanaa mo wax leen bismi moy bismillahi rahmaani rahim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri qaasiqin izaa waqab wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin izaa hasada wa min sharri nafasati fil uqad moy lan fas wa min sharri hasidin izaa hasada ku iñaan ba pare ki ñaane la wa qulus bi rabbi naas maliki naas ilaahi naas min sharri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi suduri nas fils su nasim moy lan minal jinnati manam ñi nga xane ne seen xol baxul seen xol kañana ci ne fess ci del ci jinne ak nit waaw. wa mata tax nag wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yoy kañ nga koy faral di def. bon yooyu boo boo ko di def mo gën. waaw bo bëggé walu wërsëg tamit istighfar baax na. istixfaar waaw da nga koy ba kay bari loo koy loo koy def moom amul lim. amul lim soo xasee def soo xasee soo ouverture bi daal soo xasee def 1111 euh, yi 1111 soo xasee def saa bu la neexee mën ngay def istixfaar day ubbi waaw waaw loolu 1111 waaw waaw 1111 mhm. looy tàggatoo tabaarkàlla macha allah waxtaan wi am na solo te tabaarkàlla daal. waaw xanaa li ma leen di tàggoo di di gannaaw bi ma gërëmee sama soxna. sama sama xarit na ngeen fexe ba mu jàll de waay <laughs> sama soxna sama xarit ah bu gën bi moo ko gërëmee gërëm sama ñaari wayjur tabarakallahu toog ci soxna Awa ñoom sax laa waroon jiital ndax joom samay samay lépp lañ di gërëmit sunu wayjur bopp muy Serigne Mansour Sarr nga xam ne bu buudi ndax xam ne tabarakallahu muy kilifa gu mat kilifa eh, bokk ci di di di gëstu li ngeen di def muy marabu intellectuel yu bëri da koy da kay xool yu bëri dañ ciy waxtaan neen koy bàyyi xel di leen gërëm yéen yàlla li ñaan seen télé bi yal na yegg fu kawe seen jot waaw waaw waaw li ma metti point comme daal yal na dem ba mu nekk lu ma neex point com <laughs> waaw yàlla mun na ko yal na ko def lu ma metti point com yal ngeen dem ba mu nekk lu ma neex point com yàlla mun na ko yal na ko def waxal leen ma ko seen directeur bu ko defee ne man maa ngi nii je disponible pour yéen surtout yow da baax yow nag gannaaw loolu dama lay gërëm parce que du fii maag yow demb la da nga ñàkk ki ñaan mais élection yi daal li ma la ciy gën a loo xel nit ñi nañu gën a te garder xale yi xale yi moom des na xale yi moom des pour ñu bàyyi xel nañ gën a garder xale yi ah nañ gën a garder xale yi. yow moom li ma jaaxal mooy doo ma ne kii mooy gagné xanaa après da koy dee ndànk rek. <laughs> non bu dee ci wàllu gagnante bi moom xam nga kooku moom waru yi dama ko daan wax ma ne leen am na ci loolu yàlla sax dala koy jox ne la bu ko wax. waaye yàlla xam na ne. yàlla xam ne maa ngi koy wax rek ci élection yi bi muy gën di ki mm-hmm. ma ne leen ñu commencé quoi élection yi sama soxna xam nga dama koy tooñ. ma ne ko mais am na benn benn benn benn màggat. Mm-hmm. bu dugg see rek données yi changé. ma ne ko mu ne ma day bokk ma ne ko du bokk mais day données day changé ma ne ko parce que euh, dafa am yoo xam ne day bokk waaye nag am na ci loolu kii gagné moom kii ñu rocci woon kii ñu rocci moom mi ngi fi waaw xam nañ nag kii gagné waaw xam nañ ko waaye nag yàlla waaye waaw alimul xayb wa shahada waaw ah, waaw yàlla na yàlla mottali soxna Ndeye Bàlle ndax yàlla na yàlla defal na sutura biir ak su biti eh, maa ngi nuyu ñëpp nag képp ku ma seetaan maa ngi lay nuyu di leen wax xam-xam bi lu ci wàcc yàlla na ngeen ko jariñoo ñu bokk nun ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam tabarkàlla macha allah gis ngeen ko noonu li ma métti lii rek moo ko tax a jóg c'est vrai que people la ñuy def waaye itam lépp loo xam ne dafa concerné sénégalais yi dañ siy dem dañ siy bay suñu waar te jamono ji ñuy wax buñ ne élection tabarkàlla macha allah réew mi tàng na lool lool lool jëlee nit nak mu waxon ci ay at ñëwaat ñu gis lim ñu waxon day baax itam mu wax ñu parce que sarax yim fi wax yëpp bu ci nekk day jariñ nañ ñu dimbali rek saabu yomb na soow yomb bu ko njabot gi ñu ñëpp suñu borom war ñoo mëna a kon dama leen dox dox dajé semaine bi ñëw ak keneen ku may dal ndax xam ngeen élection yi mom ni la du ñàkk léeg ah te lu mu gëna gaaw gëna baax soow bi mom ku ko ku ko jot tay nang ko def nang ko def lu mu gaaw avant élection yi mm-hmm. mëna am sax yalla mëna dogal mm-hmm. nun nak ñi ci luñ man ñu ngi ci luñ man pour empêcher pour jàmm am mais xam nga fi dool ni kenn nit du xeex waaw nit ñu bari nag xamuñu lu pouvoir bari bari yàlla dafa wàcc ay pouvoir yu bëri looloo tax foog ñu bàyyi ko xel. jabar bu nekk daal mu jël benn musu soow saraxe ko ak saabu waaw. ko ba mu neex mu wut benn saabu saraxe ko xëy saraxe ko loolu daal jox ko xale yi te mu garder xale yi waaw. am na solo. am na solo am na solo Imaam Mamour Sall la ñu àndaloon nekk fële ca Louga ñu am mbégte lool bi mu ñu accordé lii parce que li muy wax sax moom bërigul waaye comme man damay loxati ku ne <laughs> moo waral tax ma waat ko ak sama équipe darban ko ah tabarkalla macha allah ak keneen ku may dalal si biir Limametti Show jaa ngeen jëf.